kaay ñëpp fii laay tàmbali yéen ci seen revue de presse sa kaasu kafe nga guux bala ngay naan ma li xew ci réew mi sunu gaal gi yëgle kaay di l'observateur ne ji la waay ndax li mu def yoon dina ko bàyyi noonam de waa ji dey doomi frère am ñoo gaañu ñaar ñëpp mu daal leen di suul ci guddi gi parax paraxee leen denc leen autopsie jota am jotu ñoo xam lu leen faat yëgle kaay bi ne te itam suul na leen te amul benn autorisation ki nga xamante ni moo di frère am bi le yéeme na te doy waar réew mi quotidien yëgle ni ma ji waaye itam de li mu def doy na waar moom daal sàcc lees ko jiin rek mu daal di jëlu paaka buqi eh waay Ndaw Samba waax wuti ki nga xamante ne moo di yaayam jële di ko menacé mort ney day faat yaayam réewum Sénégal de fii la toll da ngay seet lii rek turbine yëgle kaay ni ma seetal ma ñuy jëfoon jëf ju ñaaw ji daal ko def ci ki nga xam ne moo di noddukat bii di Serigne Bassirou Gueye ci coow lu nu amoon ci seen jumaa jax ba mu mujj ni day tabax jàkkaam yëgle kaay bi ne nu fekk ko fa faat ko ubbil yéene kaay ni ki tey ji la ñu fa séene janok yoon yëgle ne imam ba notable ya ak ña bi ni jëf-jëf jilee Thiès info yëgle dem ca dëj ay mbokkam yëkkati ay kàddu ne ba nëga ni nag am na ci ñoo xamante bokkan nan ci mbir mi laa wax te jàpp nu leen ma ni nan jàpp ñëpp di ay doléance yu ña nga xamante ñoo di mbokki Serigne Bassirou Gueye mii faat ñoom day neeñu bëggunu problème bëggunu coow te itam du nangu benn yoon ñuy jàpp ñi di bàyyi ñi ñi ci tàq ñëpp nañ leen yóbbu fa ndugg siin ñoom ñi bokk ci bas day neeñu bas dafa njaboot école la woon te ñëpp ci doon jàng ci moom kon nag képp ku ci bokk nan la yoon kenn rawatina ñi nga xam ne ñoo doon dagaan kàddu askan wi ci élection yi ñu génn sunu réew mi de fii la toll tribune yëgle kay dikk ak man ci nataalu boolu ceeb bopp ay loxo dugg est bu ñu wattuwul dëgg-dëgg dina jafe ci réew mi lee ci diggante de juin ba août bu ñu wattuwul lu jigee million dina nekk ci ay jafe-jafe tey mi ci jooju la jamono njiitum réew mi las yëgle kay ne mook soxnaam ànd nañu génn dugg ci banlieue bi nemmeeku li nga xam ni moo di jafe-jafe yi askan wi nekkee ubbil yéene kay moo xam VDN 3 bi Malick wàqi naan nim saat ba yëmbal noor te

moom la askan wi di defante ci réew mi yàqante bi nga xamante ni moo am ci réseaux sociaux yi xasante ka saagante las yëglekaay feelu ko ni ma bagaar ba ca assemblée nationale it sëriñ bi wax na ci ne ca péncum ndawi réew may xeex ni ay mbër ma ni sëriñ bi àdduna ci itam Sénégal léegi wàllum sëy góor a góor mbaa jigéen ak jigéen ni mu baree acte contre nature laa wax loolu coow lépp am ci askanu sunu gaal bu ñu sukkandikoo ci sëriñ Babacar Sy xel ba wàllum góor jigéen bu mu law ci réew mi sëriñ bi nee nañu delluwaat ci yàlla mani sukkandikuwaat ci njàng mi nga xamante ni moom la fi Maodo bàyyi sëriñ Mansour Sy Dabakh yëkkati ay kàddu jagleel ko famille si moom day nee dafa doy 60 ans de polémique doy na sëkk revue de presse du jour ko xamle 24 heures yëglekaay ni ma Cheikh Mamadou moo xam opposition moo xam parti au pouvoir ñëpp na seen xel dem ci jafe-jafe ak ndóol gi nga xamante ni moom la réew mi dundee indil ñu jàmm ci réew mi daal la ñu soxla yëglekaay bi ni ma ca dëgg-dëgg te awoon ak Medina Baye wane na yoon wi ca Tiwaawoon ba tey Serigne Moustapha Sy ca champ de course ubbil yéenekaay bi gàmmu Moustarchidine yi moom Serigne Moustapha Sy njiital Moustarchidine yi léegi fu yëglekaay ni ma moom kay lu nee Macky Sall rek mooy adversaire ci réew mi te nag xam ni mënumaa tee jëm ca kaw enquête yëglekaay nee ma Serigne Moustapha Sy yëkkatee kàddu jagleel opposition bi ni leen na ngeen xam ni combat bi du yomb Les Échos yëglekaay ni ma Serigne Moustapha Sy laa wax yëkkatee ay kàddu ba tey nee Pass yi wax ci passeport am bi ca Maroc enlèvement bi nga xamante ni moom lañ ko doon enlevé ca Mauritanie événement ba ñu fommoon ca Gambie moom day nee un jour viendra waaw te awoon dina nekk ci ay loxoom ba noppi naan Macky a peur de nous critique yëgle kaay ni ma booy wër chef opposition bi laa wax dëgg dëgg dëgg demal wëri Serigne Moustapha Sy mooy chef opposition li quotidien yëgle kaay ni ma ko opposé contre ka nga xam ni moo di Mimi Touré kooku Ismaïla Madior Fall lay ni Mimi Touré dafa wote comme bi man bu boobaa deñ est-ce que doy waar mani seesum Mimi Touré bi ca péncum ndawi réew mi rëngi-rëngi ni jaani ñàngoor keroog ba mu wonee ginnaaw parti au pouvoir ak nëgëni Aline Souaré ñëw taxaw solol mbubbu avocat Mimi Touré nee même su fekkente ni daa démissionné ca APR wër te li nga xam ne moo di mandaam vox publique le kaay ne ma lii kay règlement de dëgg la ñaar ñii daal fi mu nii tembe jaaroo wunum taal te ku ci nekk ci ñoom ñaar la nga xam a ñagasuk mbomb ñëw dundul waajuri yi ndax fourniture seer gi mu seer ci réew mi tey Sénégal fu nu jëm ci gàmmuk ren gi ñi nga xamante ñoo doon gàmmook ñiy ras déem bokkuñu ma ñi doon ras déem di def ay déli di sàcc ka def yu ni mel jàpp nañ ci lu tollook personnes da seet lii rek doy na waar libération yëglekaay ni ma lii itam dara gënu koo doy waar usine ba nekk ca Jurbel laa wax saa su nekk rek ñu naan ña cay faatoo ngay yokk fi toll ni tembee ñu ci juróom libération yéene kaay ni ma du kenn ku dul soxna njate siise mi nga xamante ni moo yóbbu turu askanu sunu gaal bi yëkkati ko ca kaw a kaw ci àdduna bi yëpp ci concours tarib alxuraan ba ñu doon amal ca Dubaay yëgle kaay bi ne ma lu tolloog juróom fukk ak ñaari dëkk yu nekk ci àdduna bi ñoo fa te teewoon andaysaan ndaka la tari rek daa di raw képp ku fa tari ndax gën a mokk la gën a mën a jàng gane ci moom niki talaata ak jàmm ak salaam lañ ko fas yéene màggal dara jaaj ko fii ci askanu sunu gaal jar na ko jar na lu ko raw ba tey coupe moo di ministre Yankhoba Ibrahima Diatara mi ñu dénk wàllum tàggat yaram ma ni nuyoo nañu joxante nañuy loxo bég nañu ña koy waaj sunu làmb yëglekaay ni ma ñuy waaj ngoon ak jàmm ak salaam fa nga xamante ni moo di ca sóoraanoo sow bu doy waar ci benn altine gii nu ne ñeenti face à face fa sene cee am te ñoom ñëpp di ay ndaanaan Balla Gaye 2 dina jàkkaarloog Boy Niang tey face à face rëg-rëg jàkkaarloog Sa Thiès tey face à face Frank jàkkaarloog Forza tey face à face sox ak Marlin jàkkaarloo tey face à face tey kër Double Less tey de seen ñaari mbër yëpp fa séene jàkkaarloo fa adversaire dara du ko daak xëcc day bu daggul dikk <laughs> jant raam raam so si laatir bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jaa ngeen jëf mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi yéen ñi nga may safoo ka teewlu euh, ñaanal leen jàmm ak salaam yéen ñi nga xamante ni itam yéen a demoon ca euh, Tivaouane euh, ak ca Medina Baye Kaolack Ndangaan Thiès Mbour fu ne fu ngeen mën demee rek defi li nga ba ci cana ne fu ngeen mën a dem rek defi nga xamante ni moo di également gàmmu euh, ñu ngi leen di ñaanal euh, yoonu jàmm ak salaam yéen ñi ñi béegul ñi àgg itam ñu ngi leen di masawu coono ah di ñaan itam am na ci ay ay accident yu ci jot a xew euh, Euh, ci ñi nga xamante ne ñoo demoon ca fa nga xam ni moo di ca Tivaouane donc euh, ñi ci jot a faatu ñu ngi ñaan yàlla yërëm leen blessé itam yàlla daal di fëgg seen bopp ba delloo si leen ci seen euh, li nga xam ni moo di njaboot ñu jaajëfal képp koo xam ni rek tem yaa ngi ñuy teewlu di la jox sa wàcc waaye di kontaan bu baax a baax a baax ci ñëpp bàyyi wunu kenn nuyu naa kullukum kuy teewlu revue de presse bi ak Fall Damel ci biir réew ak biti réew mbokk yi mbaay yéen a ngi waajal sama gàmm gi gàmmuk Pire pirum ndëri sama dëkk samedi laa jàmm ak salaam sama gàmm gi ni ngeen ko waajal ah pirum ndëri nee naa leen ma nga ne ca xombal ca Touba Tour foofa laa dëkk ni ngeen waajal sama gàmm gi bu baax a baax a baax a baax a baax a baax samedi laa jàmm ak salaam ayca ñu nuyu nag bu baax a baax xelil kafe gi nee naa leen di leen commenté ndax ma di leen xelil kafe gi damay bëgg ci loolu Omar Diallo maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Abdoubacar Aboubacar Daabo Aboubacar Daabo moom sama waayu bopp la moom yàllaa ko def muy sama waay maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax ci ñaan yeeg lépp macha allah borom xam-xam bi kenn du moom ci réew mi Aïcha Ndom nuyu naa ko nuyu naa Mor Seck nuyu naa euh, Cheikh Omar Mor Seck moom mooy moom it ndaa ndaanaan la vraiment jaajëfal naa ko am Amadou Dieng maa ngi koy bige bu baax a baax a baax daam Kunta di nuyu bu baax a baax a baax baax képp koo xamante ne yaa ngi may teewlu Yacine ñoom ak ñoom ñëpp maa ngi leen béggee ji bi baax di béggee Papa Thiaw di béggee waa Gosaas di béggee waa Thiès waa Pirub Ndër yi wax naa leen ko sunu gàmm ngi ne ko waajal ah béggee naa bu baax a baax waa biir réew biti réew bàyyiwuma kenn fépp waaye nekk ci réew mi àdduna wërngal képp maa ngi lay jaajëfal di la jox sa wàcc waay jàmm ak salaam nag laay ñaan yàlla def ko ci askanu sunu gaal def ko ci képp koo xamante ne rek yaa ngi nuy teewlu ak foo mën a ne ak foo mën ne maa ngi ñaan jàmm am ci réew mi jàmm daal na am ci réew mi waaye la xew ci dëkk boobee di ngëyeen ah mitti na te doy waar doy na waar trop ngëyeen xuma ngëyeen doy na waar lool lool lool lool muy noddukat ba nu fa ci jumaa ci yàlla doy na waar de ah bii nag de moom dama ko mësta gis man ndax ndax Sénégal lañ ne ba léegi gaañ yi damay laaj rek damay laaj rek ah am na sunu maam yoo xamante nii di tey bu leen yeewoon nii leen pëkk pëkk wax leen nii leen fii la réew mi toll dañ naa la non foofu du Sénégal mbaa nu ni la film la ah, ay tricage la daan am ci film yi te sax du dëgg ci film yi ñun nag ñu dëggal ko noonu ci yàlla moo taxit sëriñ si wax wax nañ ci ay waay nan delluwaat ci ñoom maam valeur yi nanu sàmmaat jikko yi ah. nanu nanu nanu nanu nanu nanu nanu mise à jour eh, jikko yi nanu ko mise à jour nanu nanu coupé ñaawteef yi sànni ko ca korbay ba installé yiw yi ñu copier jàmm ak salaam ci réew mi ay waay ay waay ay waay yàlla na jàmm am gaa ñi bu suba ak jàmm ak salaam jërë ngeen jëf